bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala julli ci yenentam ba sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di dénk sunu bopp di dénk képp ku nangu ñu gën a góor-góorlu teg suñu tànk ci taqwallah ndax kat yàlla tànnal nañu li gën def ñu ñi gën subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne inna allaha astafa lakum diina fala tamutunna illa wa antum muslimun dellu waxaat ñu ne yéen ñi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar wa tu'minuna billah ñu xam ne bi jaamu yàlla koor jàllee muy weeru koor shahru ramadan al mubarak am na geneen jaamu yàlla goo xam ne dëng ma laat na te moo koor la leen wuutale moom dadi ab tukki ab tukki la koor yàlla dane woon fa man shahida minkum shahra falyasum fu mu fekk nit fu mu la fekk yaa ngi dund waaye aj makka nag ñi nga xam ne moo koor ñoo bokk di ay ponk bi ko suñu borom di santaane tudd na ca ab tukki walillahi ala nnaasi xajjul bayti am ñu jàng xajjul bayti man istataa ilayhi sabila wenn yoon wa man kafara fa inna allaha ganiyun an il alamin war na ci jullit yi ñépp na teg ñu laajante ko mu ne aji mag te yàlla rek tax nag ci ku ko man wenn yoon li ko wutale koor ak julli ak azaka mooy ci benn barab lañu koy defe ci ñi koy def ñépp dañuy tukki moo tax mu ne ku ko man man nga nag bokk na ci am loo yóbbu lu la yóbbu am loo yóbbaale amit loo fi bàyyi te amug wér wér goo xam ne soo demee da nga mën a joxe ponk ya bañu doon koo xam ne dañ koy ñog ñogal rek ëmb ko yóbbu ko mu toog ci benn barab lu ne mooy demal ne defal ma ko bokk yi nag mënees naa tibbal nit sexal ko wala nga yéyal ko sax ba mu mokk waaye wanaasu nag borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kuy aj ku ne na omra waale benn mu jiital omra aj googu am na nu tudd wala mu mujje omra waaye ñooy lëkkaloo ñoom ñaar ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañuy dàq ci nit ki ak ñàkk waaye dañ koy faral ay bàkkaar dal ne misaal ma mooy uppukaay yi na ci mbaar yi ni muy fi muy jaar ak weñ weñ gu ñuul walla wurus walla xaalis noonu la aj def ay bàkkaar ak ñàkk da koy tàggale ni ku ne xam na ne uppukaay yooyu buñ ko tegee weñ gu ñuul mu ne dégg ni tuuti dangay gis mu soy ko ba mu xonq coy wàññi ko wàllu ko jikkoom ba ka koy liggéeyee lu ko ci sob jëfandikoo nu mu ko neex jubale ko fa nee na noonu la aj ak umra di lakke ay bàkkaar noonu lay tàggalee nit akuk ñàkk dal ne aj goo xam ne nit ki defe ne ko nam ko mane bu ko yàlla nangoo ak payam aljanna rek la dal ne ku aji defu fa mel ni mbóosóor am na ñoo xam ne bu ñuy aji makka ajiwuñ makka daal kese kese amuñ pas-pas boobu waaye dañu fa bëgg a dajee ak VIP yi ñuy wax ay VIP ba kenn ku ci nekk bu ñu fa gësee bunt nga am foo jaar ak ñoom loolu ci ay caaxaan la bokk am ci ñoo xam ne it bu ñu fa demee duñ toog duñ dallu dinañ dañ kumpa fépp dañ kumpa lépp loolu yi bokkut ak aji mooy fi ñu waxee ne man xaj fa lam yarfus walam yafsuq bi ma mujj wax mooy lu nekk nga gis ko lu ne nga def ko fa ku ne nga gis ko fa lu ne nga gis ko fa faasiq nag yàlla ñu ci yàlla musal mooy koo xam ne benn tànk ma ngi ci biir diine benn ba ngi ci bitti te bale ci bitti mu ëpp doole bi ci biir yàlla ñu ci yàlla musal nee na ku aj aj googu nga xam ne dem na ba ñëw def ko nam ko war a defee nam ko war a defee nañ ko ko sante la ca des mu bàyyi koog yàlla buy dellu siwaat day buy dellu fa mu jóge woon day mel ne na ko yaayam jure woon ci tànk ci ñàkk bàkkaar kuy soog a ñëw na muy sete ci bàkkaar noonu la kooku di sete daan ne la muy dugg di dem gëléem la waxoon waaye ci yërmande suñu borom ñun ñii di dugg lu dul gëléem mën nañ caa bokkaale nee na tànk bu gëléem nga seqi wala mu teg ko yàlla daf ko ci bindal xasana xasana nag yàlla rek moo xam ne muy toll waaye dana ko ca faral sayyi a yëkkati ko ca yëkkatil ko ca ab dara kon la muy dugg di dem saa bu déqee ba ba muy àgg na séentu ne bu fekkee yàlla ko tax a jóg dana ca am loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dige dellu wax ne ñii aji ak ñii umra gani suñu borom lañ ndax daf leen a woo ñu wuy ji kon buñ koy laaj mu di leen jox ndax tab la bu du jeexal laajoon nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf yi ban moo ci gën mu ne xanaa gëm yàlla te gëm yàlla daa am ay jëf yu koy firndeel gëm yàlla ko ak yonentam ak yañ war a gëm yépp yooyu la koy firndeel mooy bu dee ab jullit la na ñépp seere ak takkoom ak jàkk ja waaye na ñépp seere ak nangoo génneem asaka ak na ñépp seere nangoo wooram ak it lu mu néew néew ci dundam dem na makka aji makka ba benn yoon ci dundam ñu ne ko lu ca topp mu ne al jihaadu fi sabilillah ñu ne ko ba ca topp mu ne xanaa aj bu yàlla nangu de moom ca la lépp loo xam ne dañ koo dendee la gëm yàlla nag ak jihaad fi sabilillah du gone kenn kon ñi nga xam ne yàlla mën na loo mën noo la leen ko nañ xam ne mi ngi gàllu ko seenu loos te du leen wàcc te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na yonent bi ne yàlla nee na boo ko déggee mooy li ñuy wax xadis qudusi yàlla ne jaam bii nga xam ne jox naa ko ak wér jox ko wërsëg mu toog juróomi at ñëwut wóor si sama woote dana am lu ma lu ma ko xañ loo xam ne mënu ko amee fenn fu dul ci ma Omar ibn Xataab radiallahu anhu nee na ak a neexoon ma xam ñi mën a aji te aji wuñ su ma leen xamoon de dinaa leen gàll ab galak bu ñu war a fay te mbokk yi ku ne xam ne ab jullit du fay galak ci réewum jullit kon am na ñu ñu ñu koy nuru ku mën a dem Makka aji te aji wut Sidna Omar nee na bu ko yàlla xamloo woon jëmm yooyee dana leen gàll ci seen kaw galak buñ ko bu ñu war a fay ci réewi jullit yi yàlla na yàlla musal ci boobu pas-pas Seydina Ali nee na ku mën a aji te aji wut ba faatu doonte day yóbbu mbooloo mu bari du ko xàmmee ak ñeneen ñi nekk suñu pegg te duñu ay jullit yàlla na ci yàlla musal bokk yi yóbbu ndeyam ak baayam dañ koy ñaanal nit xale naa ko yàlla na nga dund ba sa doom yóbbu la màkk ñu di la teertu lu baax la yàlla na ñaan yépp nangu waaye doomam joojee nga xam ne moo war a yóbbu ndeyam ak baayam na dem moom ba noppi ba ñëw ndax balaa balaa kenn laax jaay daa war a laax lekk ndax am na ci biir dëkk bi ay daaira yoo xam ne bañ sosoo ba fii mu nekk ñoom wane nañ aw yoon ci ne balaa kenn yóbbu màkk nit daa war a dem màkk ba noppi ñoom dañuy def bu ñu toggee ba noppi bala ñoo tàmbalee séddale di yët nit ña dañuy tànn ña doon togg ak nga taxawu togg yooyu ñu tibbal leen fee ñu def ca lañ man ñu soog leen a yan ñu door a yët ña ñuy yët mooy waral bu ñu dem ba ci yoon yi ñuy kalaŋaatu di yóotu ndab li la ca nekk ak nu leen xeeñ ñu di ko xemem te duñ ca mos loolu mooy tegtale ne balaa kenn yóbbu makka moo xam ndeyam la wala baayam yóbbu makka wóoru ko wëragu ko li ko war mooy moom ci boppam mu dem màkk ba ñëw su soow su su boobaa nag ku ko soob mën na ko yóbbu ñi fas yéene dem ren ñëpp yàlla na leen yàlla yóbbu te delloo si leen ak jàmm ñu xam ne nag pas-pasub jullit bu yàlla xase ba joxañ ma nga teg pay ga ca pegg ba te waroom xam-xam yëpp juboo nañ ci ne àdduna kër gu ñuy kër këree la ak pay du feeñagoon léeg-léeg gis ku am loo xam dañ naan lii mënu ko woon a ñàkk ndax def na nangam def na nangam te fekk fay jot fay jotagut fay jotagut kiy fay mu am njariñ mooy subhanahu wa taala te fayagut léegi kon ñu xam ne tey muy àdduna fu ñuy liggéeyee la ëllëg bisub rek la la ak bisub pay kenn ku ci nekk na xool fi muy teg tànkam ba bu farata dëgmalee na fexe ba def ca kem kattanam rawati nag aj moom bari nañu ko mën nag léegi waaye dañoo xëntewoo du yóbbu waate te demaguñ yàlla noonu yàlla mosu ci boobu pas-pas suñu borom mi ngi wax ñun ci alquran ci suratul luqman yéen nit ñi ragal leen yàlla te ragal bis bi nga xam ne am fa njaboot gu bari jëriñu fa dara ni ñuy joxe yi ñuy joxe naan ñaata bopp nga yor wala bu dul alaxira alaxira doom yu bari jëriñu fa dara duñ ko comptabiliser xanaa lañ ciy comptabiliser mooy kay lu teewoon nga teg leen ci siraatal mustaqim lu teewoon bañ la yóbbu bëggee yóbbu mag nga ne ko demal ba dikk dooru yóbbu sa ndey wala nga yóbbu sa baay waaye it am fa baay bu baax yax bu rëy amu fa benn njariñ yaa ayuha naasu yaa ayuha naasu taqu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi walidun an waladi wala mawludun huwa jaazin an walidihi shay'an te ñu xam ne yàlla lu mu diggee dana ko def inna wa'da allahi xaq dee gi mu waxoon ku ne teg na ci bëtam bu mus sa gis ku dee it ànd na ba tey ci ku dee ñu di ko yóbbu dégg na ba tey itam suba ku jot ñi naan diw bàyyi ko na fi diw faatu na diw faatu na kon du noonu mu leere ci suñu bopp lim diggante ak guñ ko loolu lépp noonu la leere noonu la leere ci moom mu ne nag falaa taxurrannakumul xayaatu dunya rik fexe leen ba bu leen adduna wor bu leen adduna wor mooy man nga ko ci sa wér man nga ko ci mën a paas man nga ko ci looy yóbbu loo fay dunde ak sax loo fiy bàyyil ñi la seen dund war rik bu la adduna war ñu di la jay di la taggal say maam ba tax nga yóbbuwaate màkk te mosoo dem màkk ñooñee mënuñu laa fay dara te si seen bopp la ñuy demal ku toog waxuma nag ni ko sëriñ bi waxee ci masali ko ginaan nee na am na si ñooñ di dem màkk ka ñëw ci la leen seytaane fexeele ba mënal leen ndax dañuy takk taxawal ñañ ñi takk taxawal ba ñooñu yóbbu leen mag doonte su defee sarti aj yépp aj na waaye nag nee na fa ko seytaane waree mooy day lim ñaata yoon te buy ñëw itam kenn ku ci nekk day mel ne ku yebbi ci xew yi nga xam ne tere woon nañ ko bu yàgg di wano te ñi ngi fàttaliku ku ñëwoon ci alaj baara ne ko daa bëgg mu yóbbu ko màkka ndax moom penc moom dëkk kat ku demul makka du ne ci sàpp su jëkk si du ne ci sàppas ñaareel si te it du wax ci pénc ma du fa am kàddu allah ji ne ko tey rénovation waaye déwén da nga dem màkk bu fekk bu ma fekkee da nga dem màkk noonu la noonu la ko defee kon bu kenn seetaan ba adduna di ko war ci yóbbu nit ñi màkk te mos dem màkk wala yaxurannakum billahi alxaruur mooy seytaane dala koy leer dala koy naatalal ñu di la limal ñoo yóbbu ñooñee ku ca def lañ santaane ci aj am nag aj bu fekkee ñëwul taxaw la ci yóbbu ma yaa ko seet ba mu soob la nga ne ko ñëwal dem waaye nag na nga xam ne demalu la demal nit màkk nag mën naa nekk waaye day fekk yow mi koy demal nga demal ba noppi yow mi demal nit màkk day fekk nga dem màkk ba dikk door a demal diw ci kaw munta dem te am na lu mu demee waaye teewul moom kenn ku nekk bu fekkee woon mbir moom la ñuy jëkk jàpp ba noppi histoire bi ka ko fekke bu ñu ko fa fekkee bu ñuy jàpp moom la ñuy jëkk jàpp ki dem la ñuy fay ba noppi bu ñu cay mosal ka yónnee loolu ko mosal waaye ki ne xew de su ko bàyyi naan joxal leen ma ko fi nekkoon ñu bàyyi ko xel te baal ko xel bu baax xam ne waxtoom jot na ku yàlla dogal mu mën a dem am lu mu yóbbu lu mu paase dañ naan ren wala daaw paas bi daa cher wala sirul waaye yàllaa fa woote nit a ngi toggoo lu gën a metti fuuf la ñuy laaj ci yoonu mag te yaakaaru ci payu kenn ku dul nit ñi nettali ko dong nit di lu si waat xel yi te daasaat pas-pas yi te xam ne addunaa ngi dox te dafa gaaw ku mën a aji na gaaw aji ku mën a aji te aji wut Seydina Omar la mu doon wax lambatuwu ko wuti ci lu neex nit ak lu naqari nit Seydina Ali noonu Seydina Omar nee na ku mën a aji ak neexoon yàlla xamal ma ñi mën a aji te aji wuñ ma tàmbali leen a daggal léegi galak galak mooy li ñuy fay ci réew jullit yi ña dul ay jullit di ko fay ci réew jullit yi kon am na fu fi ñu ko dugal na gaaw génn waaye Seydina Ali nee na ku mën a aji te aji wut ba faatu munu koo limaay la ci lu dul ñooñu ñu dendal te duñ ejjut yàlla nañu yàlla musal ci loolu ñii waaj ba noppi ñépp ak fu ñu mën a waaje ci àdduna bi yàlla na leen yàlla yóbbu te may leen ak wér bañ mën a jooxe farata jooju nañ ko war a jooxee te yàlla nangu ko te delloowaat leen ci seen i bokk fekkaat fa seen i bokk ci jàmm te ñun ñooy seen i bokk ñun ñee seen i bokk yàlla na yàlla dafa dëkk tepp te musulum seytaane ak bakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'il muslimina